Hann Village ci terrain Guadalajara ñu gën koo xam ci terrain bois ginnaaw taw bu métti bu mujjee am te àndoon ak ngelaw ci la boobu le mur daanoo mu nekk lu tiital askan wi ndax mënoon naa indi jeer li ci gën a yéeme te naqari leen mooy tekkaaralu autorité municipale bi ginnaaw ba conseil de quartier ak comité de gestion bu terrain bi artu woon leen ci bile mbir. état terrain gis na ñëpp gis nañ ko mu nekk dans un état vraiment pitoyable. ndax xool environnement yi man environnement à risque laa ko tuddee fii que danger yi am fii yëpp tey terrain mur bi yéen a ko gisal seen bopp daanu na et malheureusement je vais dire heureusement parce que ba muy daanu guddi la daanu et boobu fekk fi kenn mais pour pourquoi ma diir malheureusement parce que avisé woon nañ à temps les autorités municipales il y a de cela un an gisuñu seen réaction ba récemment ñu avisé waat leen par la suite ñu indi fi benn service technique ñu ñëw xool demaat bañ demaatee gisaata ñu benn réaction de leur part après par le biais du conseil de quartier ñu adressé leen courrier avec des images à l'appui mais ba léegi ñu seen réaction e li ñu doon ragal moom moo am mooy miir bi daanu mais y a plus de peur que de mal parce que guddi la daan ba muy daanu fi fekk fi kenn mais mënoon na demee neneen miir bi ba mu daanu aussi ñi war a jóg jóg nañ mooy le conseil des quartiers ñëw nañ taxawal am ci taxawaay bu am solo mais comme dañ ne ci dëkk dëkk kuy di dëkk administration la hiérarchie moo ko tënk conseil municipal dafa nekk sous l'autorité de la municipalité mooy du maire et de son équipe ñoom aussi avisé waat nañ leen mais malheureusement ñun passivité bi daf ñu jaaxal vraiment aucune réaction mur bi daanu na ba léegi amul kenn ci ñoom ku ñu jóg taxaw xool li fi xew on a alerté alerté à maintes à maintes reprises alerté nañ les autorités euh, de l'usine Euh, par par par des correspondances écrites euh, aussi tamit par de coups de téléphone vraiment euh, pour que le pire na se reproduise ne se reproduise pas mais malheureusement barki démb bon peut-être mën nañu sant yàlla sax ndax bi muy taw si guddi gi la miir bi yëpp daanu te bi muy daanu heureusement ba fekk fi kenn waaye ba mënoon naa am su doon bëccëg la daanu ndax terrain bi c'est une fréquentation boo xam ni période de vacances bii lañ nekk te ay xale rek ñoo doon toog si taatu miir bi tey jii nii euh, ba mënoon naa am su doon dafa daanu bëccëg et su boobaa vraiment euh, ñun en tant que population alerté nañu alerté nañ par toutes les voies yi nga xam ni moom la ñu yoon may. si beneen wàll am beneen mur boo xamante ne mairie ba moo ko fa tabax te nekk si état bu jéggi dayoo ndax mën na daanu saa su nekk teg ci xale yi dañu fay fawe te mën na leen indil ay jafe-jafe ci seen wàllu wér gu yaram ak malit ma nga xamante ne dañ ko fay këpp ndax amul buntu. y a un boo xam ne ñoom ñoo ko tabax mooy le maire et son équipe. ñoom ñoo ko tabax miir bi gis nga état bu mu nekk miir bi aussi ça plus te à tout moment mën na effondré wu mën na mën nañ ci dóor bal mu daanu mën na tawaat ngelaw daaneel ko te gis ngeen xale yi heure bi gis ngeen xale yi ñoo fiy nekk di fo malheureusement bu fekkee xale yi maari day taal yi leneen la ñuy waxati ci loolu ba tey askan wi di joxoñ baaraamu tuuma ñi di waa pharmacie nationale d'approvisionnement ndax seen camion yi nga xamante ne day dal ci mur ba ak seen mbalit mi nga xam ne dafa jege seen terrain bi waral xale yi di fa fawee te mën na leen a indil ay jàngoro wala sax nekk danger ci ñoom. dañuy dénoncer en même temps passivité mairie mais en même temps attitude pénale parce qu'on ne peut pas comprendre une société d'une envergure envergure nationale parce que euh, ñu am taxawaay bii ñu am. parce que miir bi li ko bënn ñoom déjà seen camions yi ñoo ko bënn seen camions yi ñooy arrière di mbëkk miir muy bënn ñuy arrière di mbëkk muy bënn ba tey gis ngeen miir bi état bu mu nekkee mais boobu ba léegi ñoom tamit gis ñu def ci benn réaction dañ taxaw di seetaan dëkk bi di seetaan euh, xale yi te fii maara day taali ay xale rek a fii nekk léegi gis nañu aussi beneen chose mooy que ñoom penaa encore seen mbalit yaa ngi fii à moins de cinquante mètres ci terrain bi fa la ñu sànni seen kii pour xaar oto bi récupérer ko entre xale yi dañuy ñëw foofu di foo di jël mbalit di ko indiwaat ci terrain bi te gis nañ de déchets sanitaire risques yi ci am lu nekk contagion bu nekk mun nañ ko ci jëlee mais vraiment ñun on comprend pas on comprend pas xawma ma an village li qu'est-ce lan mooy problème bi parce que heure bu ñu waree jóg jóg nañ heure bu ñu waree wax wax nañ wala léegi lañ bëgg a bàyyi nit ñi jël sànni xeer wala ni ñi taal pëna wala ñu def leneen mais ñun lool duñ ci fekk parce que nous sommes un boo xam dañu respecté de par notre discipline lépp lu ñu koy def dañ koy def dans la légalité et dans la légitimité. parfois euh, euh, dañ naan ñu wax rek wax ngeen di def mais tamit peut-être dina am fu situation yi toll tamit su laajee la neen tamit bon dama jàpp ni ni ko ñeneen ñi defee tamit ñun mën nañ ko mais dañ jàpp ni comme kay responsable lañu chaque fois rek li ñuy def dañ koy bëgg a def en toute responsabilité. sànq rek soo xoolee. am na ay des produit euh, pharmaceutiques yoo xam ni si biir pharmacie nationale d'approvisionnement la génnee sunu xale yi dañuy dem jël ko fi ñu ko sànni noonu après dugal ko si biir terrain bi di si fowee te xam nga loolu c'est des dangers yoo xam ni euh, vraiment euh, mën na jur ay ay ay musiba ak ay maladies yoo xam ni vraiment euh, les autorités municipales ak autorités de de de la pharmacie nationale d'approvisionnement suñ ñu si mënee dimbali li laay war a suuli loolu dina baax trop ndax tamit xale yi suñu ñëwee si fii si kër yi la ñuy delloowaat te produit yi ñuy fawee kenn xamul wan xeetu produit la te mën na leen jural musiba boo xam ñun ñooy assumer les conséquences. ginnaaw ba muyu terrain bi daanoo foofu. askanu Hann Village di ñaawlu taxawaayu pharmacie nationale d'approvisionnement ci seen terrain ba. ak tekkaaralu mairie bi. tey rafetlu bu baax initiative bi nga xamante ne borom mbir bi jël na ko ngir tabaxaat ko. waaye ba tey di wéy di autorité municipale yi. te di yaakaar ne dina ci indi ay saafara ci nu mu gën a gaawee.